président Macky Sall non seulement dafa reporter élection yi mais dafa woote waat dialogue woote waat laay wax ndax woote woon na hmm. mu woote waat dialogue les serviteurs yéen lan mooy seen seen position par rapport ak dialogue bi waaw je crois que bon loolu li ma ci mën a wax mooy man personnellement li ma jàpp mooy euh, parce que les serviteurs stabilisé wuñ ci ci ci ci loolu parce que tamit euh, structure boo ci bokkee dafa am dogal yoo xam ne day laaj con consensus day laaj consertation mais man personnellement li ma jàpp mooy président Macky Sall amul lu nit war a toog di dialogue ak moom. parce que yow mënoo def mënoo jël maanaam ay élection yoo xam ne yow nekkoo candidat nga daje ak ñoo xam ne nekk ñu ay candidat nga bëgg yéen ngeen ngeen ngeen décider ci avenir wu ay vingt candidatures yoo xam ne dañ leen a jàllale xam nga li ci gën a triste soxna si mooy candidat yooyu yëpp kenn ku ci nekk dañ laa laajoon quarante quatre mille deux cent trente et un parrain le minimum requis pour nga mën a jàll ci parrainage ñun avec notre jeune age en politique ñu ci. Mhm. mais quand même sénégalais yi am ci ñun yaakaar ñun on a porté un espoir sénégalais yu bari dañoo gisoon ci ñun espoir am yaakaar ni ñii tey jii bu ñu leen jëmmalee ba seen candidature fasu rek. lu bari ci réew mi mën nañ ko soppi am 47000 sénégalais yu ñuy gunge parce que 47000 parrain la ñu validé ba ñu demee conseil constitutionnel mais 47000 sénégalais yooyu am seen espoir boobu dénk ko nit nit kooku waaj a regrouper ay ressources euh, financières financières ay ressources humaines mais li ci gën a métti ay ay étudiants ay jeunes ay kilifa ñoo doon bàyyi seen liggéey di def ay veillées nocturnes ngir waajal élection yi nga jël sa moyen yépp à travers nos maigres moyens li ñu as néew ñu dajale ko kenn ku nekk bàyyi sa dara dugal ci ngir ñu waajal élection yi waaye loolu tamit ça n'a rien à mm-hmm. ak kilifa yi nga xam ne ñoo doon bàyyi seen yitte di fanaan ci siège pendant des jours ngir defar parrainage yooyu léegi ñu xëy un bon jour ne la yéen li ngeen doon def nii yëpp daa mel ne ay follower il faut reprendre tout le processus mais loolu xel sax mënu ko nangu gis nga le seul mal wala boog le mal irréparable dans cette décision ce sont ces espoirs là brisés. te loolu Macky Sall du kenn kenn du ko ko baal.